mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina yéen ñi nga xam ne yéenay topp seen télévision DMN TV bu daara Majmahun Nurayni bu université Cheikh Anta bu Ndakaaru ku xam daara Majmahun Nurayni xam ne seenum dal fii si Touba mooy daaru Tanzil kër Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké. tey jii euh, ñu ngi si màggal gi mu nekk 17 safar ku wax 17 safar. xam ne mooy bu ne suba la màggal Touba tey nag waa cuisine bu daara mañ ma wax ni defar ay xéwal am solo ku xam màggal Touba xam ne cuisine mooy màggal gi ndax fa la ñuy togge bernde yi ñëw séddale ko ñëw jox ko mbokk taalibe yi kon màggal gi sëñ Pape bernde la tey nag ñu feggoog muru saarix ku am pëseef si liggéey ji ku am pas-pas si pàcc bi nga xam ne moom la ko Serigne Touba féetale muy cuisine muy Serigne Ousmane Diop Serigne Ousmane ñu ngi lay nuyu te di la ziar. waaye Mansour ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay bu baax di santaat yàlla di santaat Serigne Touba bu baax a baax bi gi di ñaan ñu teew kay at yu bare bare. bëri ànd koog suñu mbokk taalibe waa Daara Majmahun Nurayni bu Touba université Cheikh Anta Diop. comme ni ko daan fas yéene def rek ci fii nga xam ne mooy Daaru Tanzil gi nga xam ne mooy sunu bërëb mooy sunu kër Sëñ Tuubaa di ko ànd ak mbokk taalib yi ci li nga xam ne moom mooy 16 safar ba 19 safar comme ni ko sëriñ bi santaane rek képp képp koo xam ne sama mbég sa mbég la bu bis bi ñëwetee nag ma ci sant la suñu borom te ku xam sa Sëñ Tuubaa maanaam coono beeg lépp luy métti métti yëpp da koo gàddu ànd moom waaye bi bis cant ñëwee maam lot na ci sant suñu borom woo mbokk taalibe yi woo murid yi pour ñu sant la ko suñu looloo waral tey jii suñu ñëw fii ci bis bi nga xam ne tey jii nekk na loo xam ne bis bu màgg te di mbégum murid yi di ñëpp te fii ñu féete tamit ci waañ wi mooy comme ni ñu ko tawee mooy devise bi mooy bég tey bégle maam bernde yi yaatu maam di ko séddale ci xol bu yaatu ci xol bu sell te amul xeej amul senn te boo xoolee boobu ba léegi bi ñu tàmbalee mbokk taalibe yi ñu ngi bég ànd ak ñoom ànd ak yeneen commission yi nga xam ne tamit ñoom ñoo seq liggéey ñu seq ak ñoom ànd ak moom ci ci xam ne mooy màggal gi di di santaat bu baax a baax nag di santaat boo xoolee essence yi tey jii li li nga xam ne tey jii moom moo nekkoon menu yi tey bis ci ci li nga xam ne ñoom la ñu àndoon ak mbokk taalibe ci wàllu xéewal yi ginnaaw bi ñu defaree ndékki yi li nga xam ne moo jëmoon ci ay wàllu ak lu jëm ci wàllu ay pâtisserie ak yeneen xéewal yi nga xam ne moom la ko doon accompagner. waa leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan suñu borom yàggal seen taxawaay ci njiite sëñ Mansour ak mbokk taalibe yi yëpp rek kontaan nañ ci yéen bu baax a baax. Ousmane Diop yéen a ko déggandoo yéen nga xam ne yéenay topp DMN TV bu Daara Mañ ma wax nooree nii yéen ko gisandoo sëñ Ousmane leeral na bis bi nga xam ne nag moom lañ dëgmal muy bis bu rëy bi muy 18 safar kon sëñ Ousmane waa sel Selcom ñu ngi lay gërëm di la sant. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.